rentable facile la service de taxi numéro téléphone bi 78 137 11 11 ñooñu ay partenaires yu petite production la ñu waaye tam waa Trax partenaire yu petit la ñu su xool tey bés bi gis nga waa Chine gis itam waa TDR la la la ci ma génie civil mbokk yi arbitre bi sifflé na Thiely numéro 2 mbokk yi moo ñu féete à gauche moo ngi mu xonk li barbar waa boog barabara eh Thiely door na léegi dal dooraat na gauche eh lay la la waa Thiely mi baba Thiely dooraat na ko eh! barabara ak Thiely Barabara ak Thiely numéro 2 Thiely mi daa féroce de bu ngëmee day dóor day dóor Barabara Thiely doomu daan du ci am Barabara Thiely ñoo ngay xeex Barabara Thiely numéro 2 Barabara ak Thiely xale yaa ngi ci digg géew bi Baba Thielly waa Thielly bi beneen affaire la de. attention Thielly. Bébé Diouldé ñëwal tous. mais Thielly mi xeexee baax na Thiely ak Barbar jël na tànk ba Thiely numéro 2 jël na tànk ba da koy daan wala daan na ko daan na ko waaw waaw Thiely numéro 2 daan na ko daa jël tànk ba dégg nga nee dama am doole nee dama am doole Thiely daan na ko oh Barbar dama defar juwaat làmb noonu la. ay tuus mu feelu ma barke alxuraan sama yaram dafa daw foofu laa xam ne bakkan bi fii des ak mais daf laay dama Thank you.